asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñuy ziare waa daayira Muxaddamatul Xidma yëpp bu Touba di ko teg ci loxo Serigne Afi Bousso mi nga xam ne mooy jëwriñ waa yëpp di ziare waa Mandiaye kër Mandiaye Fall mi rek kër Serigne di soññ mbooloo mi nga xam si ne man mii lañ def may coordinateur ci ci ci ci ci famille bépp te ma wax dëgg fa yàlla coordonné bi ñu coordonné war yàlla suñu xor seet na ci baabaa parce que kat bépp jullit ba moom si ne yaa ngi Touba waxuma kër Mandiaye Fall waxuma kër Serigne Mor ñëpp ku mel ne suñu xaadim Caam ak waa kër Alaañ Mbàkke Sam ak waa kër Média Fall kër Samba Diop ak waa kër fa Média Fall bépp rek képp ko xam si ne yëg na liggéey bi ñu ngi koy ñu ngi woo fu ne di ñuy tabal liggéey bi ngir Serigne Touba waaw sa Serigne Touba nag moom liggéey bi nga xam si ne moom mooy jumaa jëf bokk ci mébét yi nga xam dafay bàyyi woon limaaloo ko ci kon képp koo xam ne am nga jënd liggéeyal Serigne Touba sa sa ñaq ci liggéey jumaa daal loolu am solo la ñun nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dañoo mun a wax nag waaye wasalaam jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah eh, mbokki mu xaddamal xidma ñoo ngi leen di siyaar di leen nuyu di leen baal xaq di leen baal xaq di jiital ci nuyu suñu aafe eh, ak mbooleem koo xam ne yaa ngi ànd ñoom ci liggéey bi di wax ci turu sëñ Modou Abdoulaye xam ne mooy jëwriñu liggéey fii ci Touba ak sañ Xasan yoo xam ne mooy eh, général bi di ñaan Seex taxa mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem jaboo si Ahmad Xadim gépp ak jullit yëpp Eh, ginnaaw loolu bu loolu weesoo dañu ñëwoon fii tey di am liggéey boo xam ne dañ koy jébbale ci turu njabootu Mandiaye Fala mi ngeeg Samba Fala mi rek Ibra Fala mi Alañ Bak Samba ak mbooleem dawlu Cheikh Omar bépp ak mbooleem njaboot gépp ndaxte liggéey bi yàlla yokk na ko ba eh, àgg na fépp ci eh, réew mi ñu ngi leen di nuyu ci ci ci ci yooyu nuyool di ñaan yàlla def ci liggéey barke ak tawféex bu loolu weeso ñu doole di soñ suñu bopp di jaajëf sëñ Assane mi nga xam ni ginnaaw bi sabab bi amee ci njëlbeen ko sëñ Amdi Diop moo ko gàddu woon boo fi yàlla jëlee Assane gàddu ko xëy na ni booba léegi tegu ko ci benn yoon li Cheikh Mountakha Cheikh Mountakha waxoon rek nañ ko yëkkati mu jëm ko ca bum laal suuf foofu la ko teg eh, yàlla dogal nag woote na mbooleem njaboot gépp wuusi nañ ko eh, ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaanaat ci dara sëriñ bi ñu gën a takkaat suñu laxasaay te jàpp ci liggéey bi te liggéey bi kat ginnaaw Serigne Touba moo digle woon jumaa ji eh, bàyyi ko Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha eh, nekk ca ba fii mu toll musta laal suuf lépp nga jëm kaw suñu yàlla boole ca ñooña kon war nañ koo sant Serigne bi war nañ koo sante Baye bi war nañ koo sante Sëñ Hasan ndax kat eh, tànki kanam la la la ko def waaye deltuwul ginnaaw benn yoon ci liggéey bi ñu ngi ko ànd ak mboolem njaboot gépp nag Eh, di ñaan nag eh, ci sëñ Afek eh, yéen ñi xam ne yéen a liggéey bi ngeen ñaan sëñ Xasan mu yàgg fa loolu te wér ndax da borom yitte la borom pas-pas la te lii rek mooy mooy mooy yéeneem ci njaboot gi mooy ne yéeneem ci kër gi nga xam ne njaboot gépp mën naa ne demaale nañu géew bu loolu weesoo ñoo ngi sant képp koo xam ne defoon nga ci saw ñaq ak képp koo amoon nga yéene tabal saw ñaq ci egsiwul ñu laxasuwaat nag liggéey la boo xam ne moom li feek ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi dund duñ ci teg suñu laxasaay ñoo ngi jégalu ci kàddu yi li ci dëng ci ñun la lu ci jub ci yàlla jërë ngeen jëf. aleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare bu baax ci turu ki nga xam ne lu ñu def ci jubaa ji ti turam la mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba li mu yéene la gel Cheikhul mu jëf ko te ànd ko noonu di leen nuyu ci turu Serigne Afia bu sa imaam. mi jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak turu kilifa yi toog ci jataay bi yëpp te ngànk liggéey daayira Muxaddamatul Xidma sëriñ Abdul Ahad Busum sëriñ Abdou Moutalib mi secrétaire général mi ngi ni toog sëriñ Fallou Mbacke mi nga xam ne moo jël organisation mi ngi nii toog ak yeneen kilifa yi toog yëpp ñu tudd tudd nañu ci des ñëpp di dalal bu baax ni ñu leen dalale woon a yi ñu jàll ci yëg-yëg bi amoon ci lawoon ca maam yaak bàyyi ya ngeen amoon yéene dekkal loola ngir dundal ko ci jumaa ti ci ngeen ko waxoon at mu njëkk ma di ko doxe at mu jot bu ñëwee day gën a jëm kanam kon yéen waa kër maam ma nja maam ma jóob ñu ngi leen di nuyu baax képp ku bokk ci moom ak noo ci mën a bokke ku aju ci moom ak noo ci mën a ajoo yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu jumaa ji ci njiital sëriñ Modou Abdoulaye Diop mi nga xam ne ko am pasteelu ci liggéey bi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare bu baax sëñ Modou euh, sëñ Modou Abdoulaye sunu nuyoo ñu ngi koy teg sa loxo nga tegal ko xalifa si sëriñ Omar ak mboolem njabootu sëriñ Omar Diop yëpp ndax jumaa ji moom boo ko tuddee wàllu sëriñ Omar da cee feeñaan bu baax tax na ñi satu ci moom sax ak ñi taalibee ci ñoom kenn ku ci ne gëm nga ne danga nga war di xëy ci lu jëmale jumaa ji kanam te loolu lu doon la ci Omar ak jumaa ji kon nga jotal ñu nuyoo xalifa bi ak lu aj lu askano Omar Diop rek di ñaan yàlla fayal ñu ko ci taas ñu ci seen barke di leen nuyu nag di fab nuyoo boobu tamit di ko teg ci kenn ci daayira Moukhaddamatoul Khidma doon ne kenn la ci yéen mel na ne bu toogoon fii mën na leen a dalal mën na leen a tontu mën naa ñëw tamit jiite délégation bi mën naa tontu muy sëñ Assane Diop bokk ci njaboot gi doon ko ci am passeef waaye bokk ci jumaa ji tamit doon ko ci am passeef ci yitteem ju réy ak yéenam ju ak yaatalam ak bëgg ku yëngu ci jumaa ji kon sëriñ Assane nuyoo bi ñu ngi koy teg sa loxo ngir nga tegal ñu ko ci ñu bokk ci waa kër sëriñ Maadaamen ñëpp bàyyiwuñu kenn ndax liggéey bi day liggéey bu rëy rëy boo xam ne lu gën a yaatu moo ci gën lu gën a kaw moo ci gën kon nag képp kuy dox lu jëme ci liggéey bi kanam ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ci turu kilifa yi kon sëñ Yaasan ñi ngi lay sant bu baax di sant ñi nga xam ne ñooy coordonné liggéey bi ci seen taxawaay mat lool mais sëñ Alaaji Jóob moom bàyyi am di Jóob bàyyi am di moom ku tudd rek xam démb jumaa ji xam ne ku yàgg sonn ci jumaa ji la bay yi xewtoon yëpp moom da ko xewaloon da ci sonn ci ay yitte yu bari ndax ay lettres yu baree bari yoo xam ne ba muy sonn jumaa ji na eh, mi ngi fi kon nag suñ am di ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom dolli ko yërmande deewlu ko njëggal ba li mu yéene woon te yéen ngeen am tànk eggale ko lépp ngeen yàlla sunu borom fekku ci yiw yi ni yàlla may na ngeen eggale ko kon suñu suñu laaj yow mi coordonné góor ñi ñu ngi lay sant liggéey bi di la waaye di sant soxna bu sa sàmb mi nga xam ne tamit mooy coordonné jigéen ñi ci taxawaay bu rafet ak yaatal di rafetlu kàddu yi nga xam ne moom la fi sëriñ Cheikh Abdou Diop yëkkati léegi di kàddu yu am solo yaatu kon ñi ngi leen di sant yéen njaboot yëpp di leen bàyyiloo xel di leen xamal ne jumaa ji daal seen jumaa la seen jëf la ci loolu bu ma nee seen jumaa la pas-pas bee tax ma wax ko ndax jumaa moom képp ku kàbbar bar nga taxaw di kàbbar sab cër la képp ku yittewoo di fa di fa yëngatu fa nga yittewoo sab la kon nag mm, yéen ñi mi seenub cër jàpp leen ne bu ñu ko doon séddalee kenn ëppalewu leen ci Euh, yitti yooyu nag lu ngeen doon la ci mag ñi ndax sëñ Modou Habib Diop ku yàgg sonn ci daayira bi la ku ci am passeef la ko ci jàmbaar la kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko sant bu baax yàlla sunu borom taxawu ko kàttanal ko ba li mu yéene egg liggéey suñ Tuubaa mu def ko ndax mag la moo xam ne tey wut teetaan na ay gone bi dugal leen ci liggéey bi ba mu egg foo xam ne bari na loo xam ne passeef moo ko fa eggale kon bu ñu tuddee jëwriñ yi dañu doon jëwriñ yoo xam ne dañuy làmbuwaale ñu toog ci jataay bi yëpp bàyyiwuñu kenn ndax li ma wax rek waa Kër Sëñ Omar dañoo jeex jumaa ji ba boo leen di sax mënu jël kàddu ko ne nga tudd ko ndax lu mu doon jàmbar ci liggéey bi ba ci bitim boo fa demee ñu doon jàmbar ci liggéey bi waa Kër Sëñ Omar dañ cee ràññiku kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci tudd daayira xen Khidma ngeen àndoon tey jii nag ñëw andi seen addiya ngeen ni ngeen ko doon defee at yëpp tàmbali woon ko ci mm, koor gi ba tàmbali ko ci màggal gi kon nag loolu lépp ay jëf la yoo xam ne xam li ngeen am xam ne li mag ñi bëgg amoom yor moom ku ci bëgg ko ne da ngay jéem a xeetu mag ñi loolu rek moo waral seen jëf yi yàlla nañu yàlla taxaw yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla kàttanal ba tax li ñu bëgg yéen la gis suñ tubaa ñu def ko te lu mu rëy lu mu yaatu yaatu buñu ci gis suñu bopp yàlla nañu ci gis sëriñ bi rek te yàlla bu ci seetaan amu yoon ñu ngi sant góor ñi di sant jigéen ñi soxna yi ñu ngi leen sant bu baax yëg nañ seen pëccëf wax nañu lépp ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom sàmm leen dëgëral leen jubal leen jubal ak seen kilifa sàmm leen njaboot gu sori gi bañ jël si watak ak jàmm ci bàkki sol xadim ñu sori ñeeg ñëpp bàkki suñ tubaa ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp kon ni nga ko waxee rek euh, suñ alaaji euh, ni ma suñ Moodu Abib daa ñëwee di fi andi suñ bàkki cuun far yàlla dogal te yow nga ñëwaat fi di andi waat addee suñ bàkki cuun nga tas fa ak ñoom muy benn di benn kon la ba tey taw feex la kon loolu lépp jëf ji nangu loolu lépp jëf ji nangu rek la loolu mooy tegtal li ma wax ne waa Kër ma dañoo yaatal mooy jëf ji eh, seen cër ci jumaa ji fii moom du lenn kenn lépp ñëpp la kenn ku nekk sab cër nga fi soo ñëwee jël cër bi ñu jox la ko ñun sàmm rek moo ñu ci war war ma ji ak yar bi teggin yi ak li fi war a am fi rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ñu yàgg fee ñëw te lépp lu ñu fi jëf yàlla ko sëriñ bi nangu te fulal ñu ko te yàggal fi Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci bàkki Sal Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi